وليستجب سؤالي تممت لي بما به التيجاني فاق وكنت لي بالمرجان لي قط ما فاق بالجيلان علي ريران الذي أعلاني يخط ما به أبو الحسن فاق بقدمة نبي جد الحسن لي قط ما زهزه عني الدنس صرت قديم المصطفى مثل أناس برأني القدوس من كل دنس وعند خير الخلق جاوزت أناس ملكتني وقلت لي إحسانا وسمت في مدي النبي حسانا نزادي من الورى باقي القديم علمهم بأنني عبد القديم يعلم الحي الذي ليس يموت الخلق أني أبدا لست أموت أجابني الرحمن قبل الخلق سبعين ألف سنة بالحق يقول لي كن فيكون ما أريد وليس ينعوني شيطان مريض يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني درجتي عند الإله ترتفع وإنني بلا حساب أن تفع درجتي كوني قديم المنتقى وبي يباهي أبدا دوتقى درجة المختار هب المرسل باع تلاء درجات الرسل يوصل قتي من أحبني إلى بغير قلوة ويأسي كل لا إذا كتبت تز عرش الباقي وسبت ملائك التباقي رام رسول الله من إلهي كوني قديمه وعبد الله ضلني الله على محمد وقادني محمد بالسمد دلني الله على الصراط المستقيم لست دا إفراط دلني الله على الله بلا تقرر وعمري تقبلا دلني الله على خير الورى وقادني بجاهيل السورى يجدني عند مليك مقتدر كل ولي كل تقي كل سعيد للجنان يبتدر سيد مصطفى جورين جورين الاجي مكي فاي نينا كو في تيو mi ngi lay ñaan nga jox ko àddee xasaay bi mi ngi ñaan it boo ko ko joxee yàlla na nga fi teewaat déwén booy dellusiwaat déwén yàlla na nga yokk saa iran wa baatinan kon ndigal la ndigal nag jëfe jóg leen ñu jox ko àddee sëñ tubaa jërëjëf njàng mi tubaarkàlla sell na teg na ci aw yoon neex na dallan yallaahu ala bilaa تغرر وعمري تقبلا قابت مقامي عن سوى الباقي الكريم بأنني عبد خديم لا يريم هاجت قصائدي قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربيا لها سهل abdullahi xaadimu rasul dunya wa oxra ismatan wa xay rasul kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab laa jamu fiddatin wala jamu zaab kanzil kitaabu wal xadiisu wal furuu waalitan tuaynuni على الشروع رفع عن الرافع فوق الكرماء بلا ابتقاء بمنى لنترما كليتي معجزة تأخرت وخير خيرات لديك بخيرات ومن توصل بواصل وصل ومن تفصل بعطف فسل وجه الذي يحبني يبيض يوم وجوه السعداء تبيض وجه الذي يحبني يبيض يوم وجوه السعداء تبيض الله كامل مكمل سواه والكون كله له وما هواه الله موجود بغير موجد فإنه موجد كل موجد لم يقدات الله جل جرما فإنه جرما فأبدى جرما كل مريد بيلود فليدم تلاوة بغير ذكر قدرس كل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 ndax danga ko jàngee positif rek te dara waralu ko lu dul ñàkk noppaliku waaye comme ni ko sunu jëwriñ yëpp waxee rek noonu rek lañ koy waxee alaaji mbàkk yu fay matatunu ci moom seede ndax ku la wër këpp mat la baay mat la jëwriñ mat la nijaay ba noppi yëkkati alalam dina ko jox ñun jànkatu xasaayid yi bu ñu amoon keneen ku mel ni moom rek danañ sant yàlla bu baax ndax bu ñu gënee sawar wala ñu gën a góorlu ginnaaw yàlla ak yonañ tibe ak Sëriñ Tuubaa moom la kon fay loo am jómb la yàlla da yàlla may gudd fan may la wér sàmmul la te sàmmal la sa njaboot gi yëpp tabarkel leen te naal ay naali naali naali naal te yëgale yépp ci barkeb Seexul Xaddim man day man matuma ci yow seede xam naa ne fi nga ma tolloo ak ni nga mel ki sama xol Sëñ Tuubaa dong laa koy seedal yàlla nga gudd fan maa ngi siyaara bu baax kilifa yi nga xamante ne ñoom nga bokkal liggéey bi ku ci mel ni sëriñ Modou Mbaye Samb mu gën ci ràññu ko sëriñ Samba Diaw ñoo koy siyaara bu baax waaye di siyaare Baye Sylla sëriñ Ali Wañ ak sëriñ Cheikh Balla Samb mi nga xamante ne moom it macha allah fa tabarakallah ahsanal xaaliqin kon ñu ngi sant bu baax a baax waaye di sant sëriñ Akassa Samb mi nga xamante ne moom lañ doon ubbil rek di ñaan yàlla kenn bañ a manqué taalibe sëriñ Tuubaa yi suñu borom jox leen xéewal yu bari yu ñu mën a jaamoo yàlla te may leen wér may leen gudd fan ba luñ leen sas wala lu ñu song kenn bañ leen cee man jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Moustapha Diop Taysiir yàlla na sëriñ bi fay la ci barkeb sëñ Touba kon sa ñàkk saa sàmb bisimilah moo ngi siyaare bu baax sëriñ Basiiru Njaay mu baax nee sa soppay Seydina Mohamed noo koy nuyu bu baax di ko siyaare di siyaare bu baax Seex Bamba Cuun